والقلم وما يسطرون dañuy woo sëñ boole Mbay mu ñëw joxe kàddu gi nga xam ne mooy kàddu dalal gan ñi eh, ñu door a jëm ci li nga xam ne mooy liggéey bi bisimilah ñu may sëñ Bolle mu ñëw bu ko defee daal di ñëw ci kàddu yooyu jërëjëf xale yi ci bàkk yu am solo yooyu nga xam ne bàkk nañ ko bindkat yi waaye bàkk nañ ko ki yàlla jaarale xéewalu jotaay bii mën a am ba mu agsi ci ñun bu ko defee ñu déglu sëñ boole bu dalalee gan ñi ba noppi ñu wéyal programme bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Seck mi nga xam ne moo taxawal compagnie bi ko tuddee yaatal mbindum alxuraan mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci wuy bi ngeen ko wuy di leen ñaanal yàlla def leen tawfeex ci jéego yi ngeen jéggi ba ñëw fii ak jéego ngeen di jéggiwaat delluwaat ngeen jóge woon aw yiw bind nañ ñu ko ci suñu balance xasanaat yàlla ñu ko yàlla defal ñu ngi sa maa ngi <coughs> nuyu mbooloo mi ci turu ñi doon saytu jataay bi ak ñi doon def yaatal mbindum alxuraan bi yëpp maa ngi leen nuyu ci turu Serigne Seck di <coughs> sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal yàlla defal ñu tawfeex àdduna ak alaaxira te dal leen ak jàmm di sant ñëpp di gërëm ñëpp di beral cant ak ngërëm li nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu client yi nga xam ne ñoo jàppale waa Sectorial ci seen liggéey bi ñu amee ndax fu ñu àgg client yooyu ñoo tax ñu àgg fa kon ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax te di leen gërëm di leen yàlla nañu yàlla defal tawfeex àdduna ak alaxira ci bak xaadim rasul wasalaam jërëjëf jërëjëf sëñ Bolle euh, sëñ Mbàkke bismillah anta bi ni'mati rabbika bi majnun